جند الشيخ أحمد جو بغا سلطان العارفين ومغرفة الخارفين 6 édition ديماش le 18 أوت 2019 أتوبا Touba Damadou دارينو داريني بوكو Bouko Ken قال الشيخ أحمد جو بغا بخبه الله بخبه محبة العبد الخديم المنتفي النافي الفرد الجامع الأعلى عليه أكبر رضوانه من خفض الأعداء والأحباء على أربعة أبيات والهانيات والأبيات محبة الأبد الخديم وردي وهو لدى ذي الأرش خير وردي محبة الأبد الخديم وردي وهو لدى ذي الأرش خير وردي محبة الأبد الخديم تكفي شرا وأنجل بعيور تكفي محبة الأبد القديم تعطي بركة من بركات المعطي Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ti di leen xiar di jiital ci sunum nuyoog sunu xiar cheikh mahamadu muntaka ibnu cheikh mohammedou bachir mbiti murit yi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñëwaat nañ ci seen 3e di dernière partie bi nga xamanteni ni mo muju di waxtane dundu cheikh ahmadou diaw ñu leen ko doon toppal bo ba léegi ngir lepp lo xamanteni ni seeni xamuñu ko won ci cheikh ahmadou ñu xam ko bi ko doon netali nak di Serigne Thierno Diaw di khalifa Cheikh Amadou Diaw baram kon nak ñu digtal leen li nga xamanteni ci ne modi 3e di dernier parti bi nga xam ci ni mo mujj ci digënde Cheikh Amadou Diaw Baxa ak Serigne Touba Serigne mortali cham alalu borom Touba doon taataan kàddu yu sell yooyu kon bismillah kon moy santane bu baax baax baax di leen fatali ne rek ñoo ngi fi ci kër Serigne Thierno Diaw Baxa Touba Ndamatou Ngélamu ngir waajtaayu bisub sante Cheikh Ahmadou Diaw Baxa ñu dikkoon fii rek ngir di leerlu ci Cheikh Ahmadou Diaw day mel ni kon noonu ko déggandoo gisandoo ko ci ay leeral yu leer nañ naññi yoo xam ne maanaam lépp daa leer naññi te jëm ci Cheikh Ahmadou Diaw kon xam naa maanaam comme nin ko waxee léegi rek muy muy muy muy jamonoy sëriñ bi moom dégg dégg lu naan dégg sëriñ bi jafe woon na wax ak sëriñ bi tamit jafe woon na waaye Cheikh Ahmadou Diaw day mel ne sëriñ bi cëralee woon na ko ba mbokk ci ñi nga xam ne mën noo wax ak sëriñ bi nga xamante ni maanaam loolu lu ko sëriñ bi cërale woon la loolu tamit bëgg nañ mu defal ñu ci ay leeral ndax jamono jooju dégg sëriñ bi wala wax ak sëriñ bi jafe na waaye moom tamit sëriñ bi da ko ci cërale xam ne bokkoon na ci nga xam ne mën na noo wax ak sëriñ bi bokkoon na xam ne tamit sëriñ bi daa balaa def daal dañ leen woo wax wax ak ñoom ñu jottali loolu daa laa bëgg mu dikkal nu ci waaw loolu dafa am bis boo xam ne ci njëriñ sëñ sëñ Malick Ndiaye moo moom sëñ bi woono wooteloo sëñ fi wax ko ne ko buy samee takutaan na ñëpp wuy si sëñ Malick Ndiaye di wër kër yi Ndiaye yëpp kër yi kilifa yi ki ñu yaakaar ne ki ñu xeet si tey ëllëg ne ku jul sax sax na ko wuy eh, bi mu ba mu agsee ba ba jub ko sëñ Malick Diaw ba ba romb ko sëñ ñëw dégg woote bi mu ne woote boobu sëñ Bam mi woote de moom wujjul ku wujj da nga dem sawara loolu sëñ Malick Diaw wax woote boobu sëñ Bam mi woote man Malick Diaw su ma wujjul ku wujj da nga dem sawara ba njëkk ba takkusaan mu tàmbalee ay béy yoo xam ne yi da ko bëggoon yóbbaale far nag te waxtu jot na Eh, sëñ bi bi mu jëndee nam laaj ma sàmb sëñ ma sàmb na ko ndax mbooloo ñëpp yow na mu ne ko mbàkk yi ñu bari ñëw nañu mhm. mu ne ndax man jaw dikk na ñu jox jox jox jaat yi ñu ne ah man daa mel ñëw nañ ko nañ ko gàttalu sëñ sëñ ma sàmb ne nañ ko gàttalu ñu daal koy gàttalu ñu fekku ci fekk muy jox bayit yi ñu ne ko sëñ bi ne yow yow yow dong lañ xaar mu daal di ba bàyyi bay bàyyi lu mu doon def ko ci poos jiwam mhm. bay amaakee rek sëñ bi ne ma jaw fonne woon mu tàmbali bëgg a dugal ci mu ne ko bàyyi ko xamoon naa ne ci ci man nga ne oh. waaw mu ne ko ma jox waxal booy bi ne nañ sant yàlla bu baax mu ne ko mbàkke mbooloo bi ne ñu ngi sant bu baax mu ne déedéet waxuma waxuma loolu dama ne yàlla mi leen bind dal leen àjjana bu ñu ko ja bu ñu ko jàmmoo dal te koo leen sawara bu ñu ko mooyee bind àjjana bind sawara bind guddi bind guddi bëccëg bind góor bind bind jigéen bind àddina bind àlaaxira bind àjjana bind sawara kooku laa wax ne nañ ko jàmm nañ ko sant mu ne ko mbàkke kooku yi ne fare yi ne xamuñu ko yow lañ xam ñu ngi lay sant mu bisimilah ndax moos dama leen doon dama leen doon fiir waaye tax bu leen ci fiir bu ñu ko defuloon dañ ma bàyyi leen moom bu ñu ma mooy la woon seen cata googu yi ma bàyyi leen moom ndax euh, seen bàyyi seen bàyyi ak seen maam ya fekkoon nañ fekkoon nañ ko fi te mënuñu ñu gën loolu kon fiir la ci sëñ bi ndax bëgguloo ñu tàbbi ci fiir googu ak cata googu mënul sant lu boo xam boo xam noonu sant lu waaw waaw waaye waaye yàlla leen sant lu <laughs> waaw moom mu dégg na ci moom moom la yàlla sant moom noonu la ko déggee moom sëñ bi na ko bu ñu ko dugaloon ma ma ma ma bàyyi leen moom ndax seen maam yaa seen bàyyi ñu fi te ni ah, kon noo ko déggandoo day mel ni kon ci dégg googu nga xam ne maam sëriñ bi defaloon na ko ba mën a wax sëriñ bi loolu loolu ñoo ngi ciy sant bu baax a baax waaye day mel ne Cheikh Amadou Diop ah, ci dañoo gis ñu ne bokk na ci xasaratul mu basara waaw ah, loolu lañ bëgg ñu di ay leeral moom loolu moom li ko waral lu tawfeex rek la euh, euh, euh, sëñ bi moo moom woolu ma fukki di di lëndëm waaw nee yow sama sama sama sama xarit ba sama sama ja sama wasila ba daa amoon fukk ñoo xam ne ñi dañoo joxoon ndab loo xam ne dañ dana moom moom moom moom la ma rafaat ci yéen ñi waaw sukk ndab la ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom fukk ñoom fukk sañ ma jëw ci la bokk waaw loolu loolu rek la asal suñu basata mooy ñoo xam ne ñi moom war nañ ñeen ne moom yéen yéen àjjina moom seen kër mooy seen kër waaw loolu moom bokkul ci ñi ñi si taw fexal xam naa ci ñu bari waaye euh, am na ci waaye xam seen tur bind naa ko waaye euh, am am na ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma jotu ñu bari fukk daal la ñu. waaw hmm. ah, kon ndogo déggandoo ci xasaratul mubasara mu mel ne tamit dégg nañ ñu ne Cheikh Amadou Diop wax danaa wax naan su ma faatoo bu ma kenn toppee lixlaas. waaw loolu moom daa wax ne bu ma kenn jàngal Fatiha bu ma kenn jàngal alxuraan bu ma kenn jàngal euh, bu ma kenn jàngal lixlaas sëñ daam Abdourahman ne ko man de boo fa boo ma jëkki faatu ma jàngal la mu ne mu ne ko moo ko jàngalee nag mu tooñ waaw waaw waaye sëñ daam far far far ko far ko jiitu far ko jiitu dañ <laughs> dañ bàyyi sëñ bamba rek dañ bàyyi sëñ bamba dañ bàyyi sëñ bamba rek waaw loolu la waxoon waaw da boo boo dara tim itam loolu la waxoon itam moo fi bàyyi ko moo dara tim moo ko ñu wax sëñ sëñ masal bi solo ñoom ñaar daal laa dégg ci koo xam ñoo xam ne dañoo xam ne dañoo wax ne bu ñu fa bàyyi ko bu leen dara tiit ñoom ñaar nag sëñ bi dem gànnaar ñoom ñoom ñaar rek ak bu weesoo sëñ Fallu ak sëñ Moussa ñoom ñaar ñoom ñaar dong ñoo fa newoon moom ñaar yu jëkk yëpp ñoom ñaar ñoo ñoo fa newoon sëñ bi nanguwul kenn ku fekk gànnaar ci waxtu woowee sëñ ma doo dagana te woon dagana sëñ ma doo moom moom moom moom guy guy guy guy guy nangam la rek sax ci njàmbur waaye ma doo dagana ji moom teg googu sëñ bi te woon dagana rek na ko bu la kenn romb ku ñëw daal jox dana ko jox boo leen jox lu ma ko wax ku mu ku mu wóorul daal ñëw mm. am na ñaareel mu soog a wóote <laughs> day mel ne leer na nañ ñi ci noonu lu ko déggee su ko defee rek xam naa dañuy dugg ci màggal gi. nga xam ne Cheikh Amadou Diop wax da cee amoon maanaam pas-pas bu rëy te tamit am na xeeti wuute yoo xamante ni ñoo ngi koy dégg tamit comme noonu nu ko déggee ci weesu ci ay ñoo xam ne ñu ngi nettali ci histoire boobu noonu danoo danoo danoo bëgg a leerlu rek waaw Cheikh Amadou Diop Awa maanaam nan la meloon ci màggal gi ak tamit ndigal li nan la ko sëriñ bi waxee loolu tamit maanaam lu lu bëgg a leerlu la. waaw màggal gi day sëñ bi ko wóor ba mu ñëw ko mën jaw day ngeen ma ñaan bis waaye tey jii yàlla jox na ma bis boo xam ne mooy sans bis yéen yéen yéen yéen yéen mooy seen bis ndax bis la boo xam ne bii lépp lu am ci la ko am yéen lépp lu ngeen am ci yéen ko am. ba tax na mooy bis bi nga xam ne tuwaay dañu si jàppoon am nañu waxoon am na ma waxoon lañu waxoon ñoom mënuñu ci tus man la waxoon ma def ko moom sotti cooleet sama borom nag wax wax dama ne ma yii may may na ma may yoo xam ne ci bis boobu yi booba mu jël ndëm dëndam bi bis bu desee bis bu desee ci doon déwén sa mu ful may yopp loolu bayaan ma koy loolu nag ma lot lot ma lot ci cant gi ma bëgg yéen ñi nga xam ne soo soo soo mbig mooy seen mbég lu lu ngeen am ci man ngeen ko jëlee may lu moom ci bis bi laa ko jëlee ma bëgg yéen ngeen jàppale ma ci bis bi sant la ma bis bi waaw sant la ma ci sàmburu sant gi nag lu tàmbalee ci gaar ba ci gileem lu ci waay di def bu ko tiimee na na taf la ca paaka ba bismillahi tubaab yi fen ngeen la ngeen waxoon mën leen ci tous sëñ bi moom la waxoon ak borom so def na ko mu sant ci ret daal di leen doole ma waxee bàggal waaw daal di ko nag waaw daa bëgg kër am na bis <coughs> yonent bi moo ganu gàmmu tabaski maam suñu Ibrahima moom moo ko man nag bis bii mooy sama bis yéen ñi moo seen bis nañ ko def na tabaski waaye nag yéen moo gën ci yéen tabaski nañ ko def na tabaski waaye yéen moo gën ci yéen tabaski sëñ ma jëm mën na ko tudde woon tabaski mën la ko tudde woon mën ñu yëkkati ñu yëkkati moo tax dañu mel ni ko ci màggal waaye tabaski mën la ko tudde woon mu mu gën ci yéen tabaski wax na ko man day màkkee da ngaa wax ne sa bis bi nañ ko def ne bisu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam man man jaw day maa ngi lay xamal ne Ibrahima alayhi salaatu wa salaam li muy baax baax du toom ci man gannaaw ndax man Ibrahima defal wu tus man lu ma am ci wala ko jëlee kon man du ma wax leen suuf suñ ko tëgg la am sëñ bi ne ko boo jógee nga dem ci Balla Fall Dieng wax kooku te ne ko na wax fa yëpp ñi ngi wax sax naan sëñ bi da ko daa woolu suñ Balla Fall déedéet yónni wóolu woo suñ Balla Fall Dieng da ko caa yónni soo jógee nga dem ci Balla Fall Dieng wax ko wax ko ni ma la ko waxee te ne ko na wax na ko wax fa yëpp ba ba sëñ ba ko waxee sëñ Balla Ba sëñ Balla daan na ko jërëjëf sëñ ma jël na ko wax ma ko mu ne ko ah yaa ma ko wax di mu ne ko yaa ci fare yi laa bokk te nag dox na nga wax ko fare yëpp noonu la wax ji demee soo jógee dama ci Balla Fally wax ko ko te neexoon na ko wax fare yëpp ba mu demee wax ko sëñ Balla Fally Balla na ko wax ma ko sëñ Balla na ko ah yaa ma yaa ma ko jot li mu ne ko fare yi fare yi la wax man ci fare yi yaa ci fare yi laa bokk yow yow la ko wax loo fare yi man yow yow la ma ko wax loo yow mi ko wax fare yi nag man dëkk bu ko wax man man ci fare yi la bokk gannaaw gi itam

sëñ Mourou Moustapha bàyyi ko ba 45 euh, sëñ sëñ Fallou ñëw am juróomi weer ñëw ñëw ñëw Gossas góor gu jox Matar Diaw moo ko doon conduire Matar Diaw moo ma nettali lii bi ko ko sëñ bi sëñ Fallou bi ko sëñ ma jox sëñ Fallou bi ci oto bi ñëw na sëñ Mat Diaw de mu bëri ànd ak ba ci oto bi ma la koy jox loxo ci oto bi daal ko sëñ Fallou lan la capatee ne sëñ Bamba arfin bi arfin sëñ Fallou ko lu mu mu ne bi bis boo ko wootee Touba murid yëpp fekk la tuba dafa na ko yow Touba ngay sëñ Bamba artam daal sëñ na ko danaa ko def mu bàyyi loo ko ñu wàcc biir la demee ba sëñ Fallou ba ba sëñ Fallou amee ñetti fan ba dem la tàmbali waaj moom ñetti weer la ci teg moom mu na njëkk loolu daal la wax naan yàlla mën na lu ne ba mu des jëlee ma fi si yëgu ko ndax sama sëñ ba diggante woon lu ma defagul te dem sama sëñ ba diggante ma naa ko def def naa ko te lu ma diggante dinaa ko def kon yàlla mun man na loo mën si jël si yëgu ma ko ba mu waxee loolu sëñ sëñ Fallu ba sëñ Fallu nongoonte ba sëñ Fallu génn demee rek la tàmbali wàññi moom ñetti weer lañu ci muy sa 46 mu ci 46 47 sëñ Fallu woote ko tubaab yi noonu la magal gi demee kon day ne leer na nañ ñi ci màggal gi xam naa dañoo bëggoon a yemale foofu noonu waaye demee ne dafa am yeneen ñaari laaj yu dikkoot yu dikkaat muy danoo danoo wax ne bi fi sëriñ bi jógee ci saaxir moom Cheikh Amadou Diop Paxa am na nu mu doon ko dundee waaw mooy bi bi sëriñ bi jógee bi mu ñibbisee Touba ci Sahir ok loolu lañ bëgg ay leer moom tey. dafa daal di bënn daal di gëm benn botum wane ne ad jamono adduna ah, suñu bàmba nekkul lu xool yaari bët mukk ñëpp ba nu jur fekk mu gëm benn botum bi bi bii da koy piis rek tuuti la ci xool yàlla dogal suñu fan ba fu mujjee ñëw nag nee na ko xule ñaari bët yëpp na ko sàmbar yi dara si ku ci waaye jamono àdduna yi sëñ Bàmba ne ko moom jël tuur xool ñaari bët daal ko daal koy loolu daf na ko fukki at ak juróom-ñeent soo koy bàyyi ko gëmm na borom bët càmmoñam bi fukki at ñeent soo koy bàyyi ko waaw ngeen na ne ne àdduna yi sëñ Bàmba ne ko lu xool ñaari bët mukk loolu la dundee àdduna ci gannaaw sëñ Bàmba waaw wax nañu ne bu dul woon wóorul sëñ Bàmba boole ak sëñ Isaa kon bis bi sëñ Bàmba ñëw Tuubaa keew la ñëw Tuubaa waaye sëñ sëñ bi da ko boor sëñ Isaa wóorul waxee sëñ ko bàyyi foofa di ñëw fii ñëw Tuubaa moo tax sëñ loolu sëñ am na jamono suñu jamono sëñ Fallu ju sëñ Fallu néew kat la sëñ Tuubaa sëñ Mor Jaw bu ko jaay doom lam ba ba salaam yow mi yaa ko def oh. waaw yow mi yaa ko def ko bi ba sëñ bi ñëwee gàllankooru ngir wala lu sëñ borom yow nag ba ma la woo ba léegi yaa ngi fi kon te yaa ngi ci lañ la santoon kon loolu mu sa baay bëggoon yaa ko def am na jamono ñu xam ne sëñ bi wax maa ngi moo jël kon demee ne leer na leer na leer na leer na ci noonu nu ko déggee kon moo wax ne tamit ba beneen tamit beneen laaj boo xam ne dafa jëm ci diggante baabul wari diina di maam Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Amadou Dia Baxa day mel ne ñoom ñaar tamit amoon na kóllëre gun seqoon waaw loolu tamit bëggoon cee leeral ci tamit beneen bi ci teg tamit mooy diggante ab diggante Cheikh Amadou Dia ak xaside yi ni ci meloon. mu ne ku jàppoon si Cheikh Ibra Fall la ndax dafa waxoon ne moom rek lay moom doo ngi la bëgg doon loolu moom loolu ndox itam moo waral sëñ bi di ak moom ba àgg ak moom foofu moo àgg moom ci dafa agut ak kenn fenn ci gannaaw yi du fal yow agut kenn ci kurul yow du seen pën bi du fal agu agu fa kenn loolu aw nga wax def naa biir yoo xam ne caa woon na moom faw si ab xeetu yu Cheikh Ibra Fall lay doon bu ne ci àddina ak bu ne àllaaxira loolu loolu def na ko wax na ko ne ñun ñëpp noo ngi lay roy ñëpp noo ngi lay roy yoon wi nga xam ne moom mu jaar moo yoon wa moo tax moom dogal dafa absenté waaw sëñ Issa Dieng nag ak sa moom àndandoom jox mi moom duñu tàggu guddi ak bëccëg da sëñ boole mm-hmm. waaye ki mu moom bi defal moom ñëw loolu moom loolu moom noonu hmm? yi moom euh, xasida moom gaaw gaaw sëñ bi moom euh, euh, gaaw la gën sëñ bi xasida yi ne mm-hmm. ndax moom moom ñett ñett sàll la def ku ku daara ju mu xaddimata gis boobu mooy bu la jox na ko tari na ko jàngal ba tari ko boo ko taree mooy demal liggéey waaw waaw ko wàccati mukk waaw moom moo doon léppam waaw soo gisee baat bi def ko tuddi dóor daay ni ci moom a ma def ko ndax ndax ni mu bëgg sëñ bi noonu bëgg noonu bëgg ak xasaay ci lépp ne sëñ bi ci def lépp ku bëgg ku bëgg a jiyee sëñ bi ku bëgg a jiyee yàlla da ngay jàngal xoraan waaye ku bëgg a jiyee sëñ bi da ngay jàng ku bëgg sa aajo faj faju itam da ngay jàng sayid ku bëgg sa aajo faju doo sonn da ngay sayid ci kon ñoo ko déggandoo damay poroxandalu foofu rek ci Cheikh Amadou Diop wax diggante ma xasida yi ñuy woo xam xam rajas moo xam durus ci bis bi nga xam ni dañ ci sante Cheikh Amadou Diop Paxa tabaski ba am juróom benn fan te ñukay amal fi ci daara yi nooru daare ni nga xam serigne bi leeral na ci ne maanaam bëgg gu mu bëggoon xasida yi sax moo tax mu tuddee daara ji nuru dare ni kon ñu ngi ciy woo bépp jànkatu xasida ci bis boobu noonu tabaski ba am juróom benn fan fii ci Touba Ndamaatu daara yi nuru dare ni waaye nag ci ndigalal sëriñ bi toog di sëriñ Thierno Diaw Paxa xam naa ñoo ngi jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo ñu toppoon di seetaan su ko defee rek moom suñ Thierno mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko te tamit maanaam ñëpp xam na ni mu mel ci sëriñ bi waaye tamit ñëpp xam nañ digganteem ak Cheikh Mamadou Fadal fi ñu tëjee suñuy kàddu rek jox ko bi mu mu mu digtal nu tuuti rek ci digganteem moom ak Cheikh Mamadou Fadal su ko defee ñu ñu ñu wàcc ñu wàcc kàddu gi ba beneen yoon. dama dama wax ne dama naa naa gàmmu si ba mu téye ma ba ma mu Baara ba ma am juróomi fan ci ak toog sax ñu woo si ma ma ñëw mu ngi ci waxtaan bi euh, sëñ Mbaye Ndiaye sëñ sëñ Mbaye Sall nga bi ak sëñ Ousmane Bousso mu ñu ubbil moom moo ñettali leen ñu daal di wuti àll at moom la sëñ ci man demee fan mu woo bokk ni bu ñuy wax Cheikh gi na ko Thierno Diaw moom yi doomi sëñ Mat Diaw ma dal néegam mu dox ma lalam ci suuf mu juróomi fan yow ba ko juróomeel nag ca activiste kër ba rek cheikh gi dugg dugg ba ci ban ah Thierno Diaw man maa ne kay wuyu ma ñëw fekk sëñ bi yor kurusam nii ma ko yore rek nekk ci ak njowoon foofee mu mu maa fekkoon mu ne moom sëñ sëñ Maodo Mamadou Mbacké doomam ji foofee foo nee boobee la ju ci la ci la ma ñëw fekk mu yor kurusam ma ñëw toog sukk toog moom rek moo fa mu mu mu wékk kurus gi ci ci jël njuwaal yi jox ma ma loxo donc kooku Thierno mu mu ne sëñ Palla loo bëgg mm-hmm. da bëgg toog fi maanaam da ngaa bëgg dem sa kër baayam da ngaa bëgg ma ne ko dara lu laa bëgg mu ne xam nga lu ma lay doyee mm-hmm. ne ko déedéet mu ne ma damaa la la la sëñ Tuubaa joxoon sëñ ma jaw mi ngi sama loxo bii mm-hmm. daa bëgg yow mi nga laaj ko jox la ko mu ne ko man loolu képp laa soxla mu ne ma xam xam ko déedéet ma kaña keroog laa ma sa dégg kaña ci déedéet ma ne ko ne tey mun xam kañaa ma ne ko déedéet mënu ma nii ma ne ko ne tey mënu ma ci daara ji laa wax ma ne ko ne tey mënu ma ci daara ji laa wax ma ne ko ne tey mu daal di Cheikh gi dawal woo muur si Cheikh gi dem woo muur si moo moo jëw ñu mag ji mu ñëw leer gu neex maa ngi soog benn xatar basé ak ak ñi la yem képp mu ne ma mu ne mu ne mu ne muur si Thierno Diaw mii kay yital mu ko Fallou Cissé Fallou Cissé ndeyam ak ndey yàlla ji baara bokk ndey ak bay fat sàll ak ak ak soxna xarit sàll

daal seex gi dugal ci néeg bi yun ma loola ci taw taw ko seex gi indi ko mun mbalaan mu rawal mu rëy mm-hmm. mun xëpp ma doon ma de ko sangoo seet bi laa métti lool de ko sangoo maa ko nga ko buuf noonu daal jóg keew laa ci daal moo ngi fukki ak juróom ñett mm-hmm. waaye bi bi mu mujjee fii ci nit ñi ay 63 dafa ma ne mbooloo mbooloo mu bari mi ngi toog kilifa yu bari mën naa ci lu ñu bari ne sëñ Ousmane Nguur si dama ko doon man jaw rek man jaw man ndax dama ko waxoon na ko lii sëñ ma jaw sëñ Tuubaa jox sëñ ma jaw mi ngi man dama bëgg yow mi nga laaj ko jox la ko waaw oh, la ma waxoon lépp def na ko may la ma waxoon def naa ko ku mu neex ku mu naqari lépp lu sëñ Tuubaa joxoon sëñ ma jaw jox naa la ko dégg nga ko ku mu neex ku mu naqari waaw booba booba ñëpp a ngi fi de <laughs> ba ma wax boobu ñëpp a ngi fi waaw ñëpp fekk nañ ko waaw ku mu neex ku mu naqari loolu daal defe am na firnde bu baax loolu am na firnde bu baax loolu mu waxee ku ku ku ku xam rek xam nga ne am na xam nga def na ko itam may doo waxoon ah, kon noo ngi jaajëfal bu baax mbokk yi ñi nga xam ne ñoo doon ñu topp ci waxtaani Cheikh Ahmadou Diaw Pakha te Serigne Thierno Diaw Pakha Asadou Pakha maa nga xam ne moo doon moo doon moo doon ko amal di ko jaajëfal bu baax te di ko ñaanal sëriñ bi gën ko fee yàggal lool ba naal yi nga xam ne tamit naal na ko ngir liggéeyal ci waajuram wa mu def ci lu kawe njortam te ñun ñëpp tamit ñu fekk ko fi ci doole xasida yi ñoo ngi koy ñaan bu baax a baax a baax kon mu mel ne kon ñi ngi fi woon ci ànd ak yéen ci seen seen Khelcom Production ak seen site tamit ahlu xasida Hizbullah kenn borom Tuubaa ngir waajtaayu bisub Cheikh Ahmadou Diaw Pakha kon noo ngi jaajëfal bu baax a baax a baax mbokki murid yi ñëpp tàllal rek sëriñ bi def ñaan kon